عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مكة جلدي ñu ngi leen di nuyu fu ngeen mën di toll di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaan ci àddina bi yépp di yë di yëgal ne am na benn audio boo xam ne mi ngi roule dégg naa ko ci at ñu ñu koy wax dem ba tey ci kawar googu nga xam ne moom lañ doon wax ci suratul baqara man toog naa suma kër dégguma xaw ma après ay xale yi nekk ci kër gi waa daara ji ñu ñëw bi ñëwee ne ma yëg nga li xew bi ñëwee wax ma ko ba ne ma kaamit bi ñu jàngee suratul baqara dañ ci gis kawar boo xam ne euh, kawar bu ndaw la soo ko jëlee def ko ci ndox soo ko naanee Euh, su fekkee ne amoon nga feebar dina wér su fekkee amoo ko doo ko amati ah ma loolu la lu kii ñu daal def wan ba ne ma mi ngi nii ma am am ma am ci sikki sàkk ndax ki ña ma ko géwént xaw ma ko xaw ma fu mu dëkk man commencement bi sax damaa déggoon ne euh, Niger la dëkk wala wala wala wala Arabie Saoudi waaye gannaaw gi lañ ma wax ne Nigéria la dëkk laajtoo ma turam laajtoo ma nu mu demee. ah ñu daal ma ne nañ indi kaamil boo xam ne ci suma néeg la nekk ñu indi kaamil boobu seet ñu ne ma mi ngi nii. ñu ñu ñu ñu daal kii ko bi bi ma defee loolu loolu mënuma ci dara ku nekk euh, ku neex nga gëm ku neex neex nga ñàkk gëm man santaane wu ma ko digle wu ma ko xaw ma ki ko santaane xaw ma dëgg laam dee du wax ji daal ñëw na toog fekk Séné euh, àddina bi nekk ci xat boo xam ne su lu ñu wax ci loolu dañ ko gëstu waaye awma ci benn responsabilité ndax waxuma ko santaane wu ma ko xaw ma ku ko ku ko def. ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك